waa asalaamaaleykum maa ngi waaw maa ngi tudd màgget Gueye di président association ATET e di association bu regroupé plus de soixante-dix-huit membres et day gën a yokk donc ma leen di nuyu ci ñëw bi ngeen fi ñëw di wax ni association bi dëgg la mi ngi juddu ci bi Covid bi amee ah ñun ñu ay doomu Thiès booloo suñu lépp doon benn war a défendre suñu intérêt ndax dañu ne mbooloo mooy doole waaye yàlla def na bi association bi juddoo ba léegi dañoo toog liggéeyuñu ndax pandémie bi parce que ah état tëral na ay règlement ñu bañ ko violer toog waaye toog bi ñu toog nag dafa metti lool te yàgg te président kat am lu mu génn joxe ko pour askanam jagleel am lu mu ci jagleel ministère de la culture te ñun ñuy ay techniciens bokk ci njaboot googu loolu la ñu xam ñun dañoo tànn technicien ak DJ comme ni beneen nit dem topp jàngalekat ba doon ab enseignant wala keneen dem jàngi feneen ba doon ab ingénieur ñun ñu ni lii lañu bëgg moo ne ci suñu xool ñu jàpp ko nekk ci di ci liggéey di ci dund nag parce que li ñu am lépp ci lañ ko am di ci yor suñu njaboot di ci suturlu waaye nag affaire bi dafa yàgg te li président joxe ñun ñi féete Thiès bokkuñu ci defoon nañ suñu list kenn joxuñu mu am ay réclamation a ah, réclamation yooyu tamit ñun ñu dugal ci kenn joxuñu boobu ba léegi terewul mu metti lool nag ñu jàpp suñu ñàmbur ànd ak ngor toog waaye nag affaire bi kat dafa bëgg nag commencé nag ëpp ëpp loxo bii président joxewaat nag ma defaat beneen list dem ci directrice centre culturel bi bu Thiès Anne Marie ma koy remercier ci taxawaayam ci ubbeekoom ci yaatoom ci sens euh, écoute bi mu am bu ñëwee mu dégluñu di ko remercier moom tamit mu defal ma benn lettre de transmission ma jël lettre bi dem au niveau de la direction des arts bu Dakar ma déposé ko ñoom ñu am njiit lu bees muy jigéen ah ma koy félicité di ko ñaanal yàlla mission bi ñu ko jox ah mu matal ko moom tey laa jot tontoom tontoom nag li mu ci wax mooy vraiment ah mi ngi masowu ci coono bi ñu daj ak coono bi ñu nekkee ne nag fu mu nekk nii du amul dara loo xam ne ñoom jël nañ ko ay décision ci li nga xam ne nii mooy fond bi président joxe. yaakaar ne kat moom du ñu fàtte ndax fii ay père de famille ñoo fi nekk ay chef d'entreprise ñoo fi nekk. jiite ñun bari ñu ne ci seen ginnaaw te ñooñu tamit ci lii ñuy liggéey ci la ñuy tedd ci la ñuy dund kon nag dinañu bàyyi xel parce que tontu na ma ah bu loolu weesoo nag may interpeller le chef de l'État moom mi nga xam ne mooy mooy moo jiite ñëpp ci Sénégal moom mi nga xam ne dañ koy dàkkantele père de la nation waaw père de la nation nag ñëpp xam nañ ne li muy tekki waaw. papa say doom ñu ngi nii dañoo sonn wane est fatigué donc ñëw leen wallu leen dañ cee bokk muy suñu droit ñu koy réclamer bien vrai que lii nii ñuy réclamer fajul suñu soxla man ce qui est sama xaalis su ma ko jotee ci benn fan laa koy jaay waaye nag nit ki nag droit am am na sañ-sañ mu laaj ko kon nag dama bëgg nga intervenir ah wax ak say ministre ak say directeur ñu boole ñu ci lii parce que dañ cee bokk kenn mënuñu ci dindi te technicien bu amul événementiel mënul am ba ci moom Macky Sall li muy def bu fa technicien nekkul du am dara lépp day naaz kon nag kenn mënuñu cee génne ah su loolu weesoo nag may interpellé maire Talla la moom mi nga xam ne ci dëkk bi la dëkk moom ay naataangoom moom day faral di tudde boppam jaamu askan bi waaw sa askan nag sonn nañu kon comme yaay suñu jaam jógal te nga walluñu c'est tout ce qu'on demande bariwul te suñu mënee recevoir mu recevoir ñu parce que aw naa ci chef de cabinet pour mu recevoir ñu bien vrai recevoir nañu deux fois sax mais awaat naa ci chef de cabinet fan yi pour mu recevoir ñu mais taala dafa nekkoon ci yeneen événement donc bu déggee lii tamit rapidement na ñëw mu secourir ñu mu walluñu pour que tamit droit yi ñeneen ñi am ñun ñu am ko parce que mënuñu comprendre ngay jox ay technicien Dakar te doo jox ay technicien feneen bien vrai que technicien Dakar yooyu mérité nañu loolu ñu leen di jox mais ñun tamit kenn gënuñu ko mérité parce que ci milieu bi la ñu nekk kenn mënuñu see dindi loolu nag moo am donc nag ah, yàlla na fi feebar bi jóg yàlla moom mooy saafara mu jële ko fi nu mu gën a gaaye parce que ñun ñu reprendre suñu activité ñun mooy suñu intérêt mais du xaalis bi ñuy jox pratiquement depuis un an seen activité dafa ñoo xam ne peut-être transformé wu nañu sax nekk peut-être journaliste wala caméraman wala dem nekk bien sûr bien bien man gis naa ay booy DJ yoo xam ne fa nii ci seen WhatsApp dama leen gis ñu yor caméra bien sûr gis naa ko parce que tamit tamit mënoo nekk un responsable de famille yor jabar ki doom saa waaye di tëdd rek man mii courtier bu mag laa jaay terrain laay doon. ay jaay teere laay def fan yii yooyu quoi mais terrain yi doxul doxul ay lu ne laa jaay ay oto ay terrain lu ne mais doxul parce que dëkk bi nag ko économie bi moo taxaw waaw nit ñi dañu nekk ci ay difficultés yu metti est-ce que déglu rajo démb restaurant <laughs> borom fast food yi ak mayga yeeg ñooñu débiteurs yi dékaas ne dañoo sonn man leen yéen boo leen sonnee ñun dee nañu ndax yéen au moins yéen ngi liggéey bëccëg mais ñun liggéey ñu bëccëg liggéey ñu guddi te boo génne woon léegi ñu jox la un programme nga génne ko dem di jouer ji police fekk la fa jàpp la nangu nangu sama matériel quitte à ce que sax mën nañ laa déféré te loolu ñun jaraluñu ko parce que on est des responsables boo gisee tey lii ñu def ko nii nit ñi doon ñëw ñëpp ñu ne leen toog leen parce que dama parce que damaa jokkoog ak ay kilifa ñu ne ñu ñoo ne ma wàññi leen réduire leen ko ngeen jéem a nekk dix personnes. donc quelqu'un de responsable il faut muy réfléchir c'est pas parce que bëgg nañu wax suñu soxla bëgg nañ ko jàllale que dañuy ñëw fii indi fi boucan indi fi anarchie indi fi non non non les mesures barrières il faut ñu respecter ko. mesures barrières yaa mbas maa ngi fi. waaw war a toogal par exemple. Mhm. yan solution ngeen teg ci table quand pour a liggéey un temps pour l'instant là où je te parle à part la directrice du centre culturel. moom lañ toogal ak chef de cabinet Talla Sylla mu ne Talla Sylla dinañu recevoir mais jusqu'à présent gisee guñu Talla Sylla te xam nañ Talla la loxoom gudd na am na lu bari mën na koo lijjanti donc président association yu bari ñu ngi wax ak moom ba ci kaam xeex bi amoon fii waa pale des Arts jiite woon ko ak ay musiciens ñun demoon nañu ñu ngi fa woon sitting bi am na koo xam ne jël na parole par l'intermédiaire de Demba Ka mi kon ñun. lutte bi ñi ngi ci bàyyiwuñu benn yoon mais ñun li ñuy laaj bariwul li nga xam ne ñun suñu droit la nañ ñu ko jox nañ ñu ko jox buñ ñu ko joxee nag leneen lu xew nag ñu xam ne loolu la te it état bi tamit ma leen di ñaan ñu xool ay yeneen solution parce que xaas bii ñu jox gars yi tamit gars yi dañuy génnaat parce que gars yi mënuñu continuer feebar bi kañ lay arrêté léegi dañuy toog fii pendant deux ans di xoole pendant ce temps là trans les transporteurs yi ñu transporté boo gisee oto yi oto yi dañuy dañuy dañuy fees dell respecté ñu mesure barrières yi mais attends problème am na donc nag il faut que nag ñu yemale ñëpp xam ne ñun ñëpp ay doomu fii la ñu ay Sénégal du ñu ay Guinéen ay Sénégalais la ñu donc il faut nag ñoom tamit ñoom ñu bàyyi ñu xel xam ne on est des de famille des soutiens de famille te mënuñu continuer ci nii di toog te duñu liggéey su boobaa nag dañuy commencé di perdre suñu dignité te nag mën nga bañ a liggéey sax am mbokk wala xarit bu ñëw des fois xam ne ci nekk nekk nga situation mu jox la dara mais sénégalais lu mu la defal benn yoon boo ko sollicité waate une deuxième fois mu xas la wala mu ñàkk la ker sax parce que loolu mooy suñu jukko waaw fii nag du ñu dimbali nit dañu lay bàyyi ba nga dee ñuy doog a ñëw di la dimbali nit ki boo koy dimbali da nga koy dimbali buy dund c'est la vérité waaw la quoi. waaw difficulté yi ñuy rencontré moom bari na trop comme ni ko prés ni ko prés yi waxee rek tey boo xoolee tey euh, techniciens yi ñoo gën a sonn ci mbas mi parce que tey su su liggéey amee su liggéey su dara amee si réew mi ñi njëkk a ñun technique la te suñuy bàyyi ñu leen di mujjee bàyyi tey ji am na ci ñoo xamante ne sax génn nañ ci sound ñu ngi dem di jël seen i dem di ko jaay ak leneen leneen ngir mën a am lu mu dundee tey ñu wax ko ak ñu nëbb ko ñun li ñuy dund dafa metti man moom maa représenté xale yi nga xam ne ñoo nekk fii ci association bi yëpp waaye li tax ma taxaw di wax dama bëgg ñu xam ni technicien Thiès yi ñoom ñoo sonn ñoom ñooy wax président am na lu njëkk a génne joxe ko pour askan bi ñu gis technicien Dakar yi ñu joxe ba bind ay tailleur danoo joxe ba jox ay ñoo xamante ni bokkuñu si technique fiche bi waaw bokkuñu sax ci culture fiche bi ñu génne fii Thiès ñun gis nañ ko bu baax ñiñ ci gis ñu bind leen ñëpp ci côté technique gisuñu leen te fii tey Thiès mënoo wax technique génn ci ku mel ni Max wala Chebre wala Dembaka wala Perkona wala keneen ak keneen fii lépp loo xam ne ni moo nekk ci wàllum sound fii Thiès ci promenade bi ñoom ñooy tëgg ay événement yu mag da ko fi def ak seen doole nekk ay chef d'entreprise am xale yu bëri yoo xam ne dañoo nekk seen ginnaaw donte ñoom am na lu ñu suturloo mais xale yi nga xam ne ñoo xam ne ñoo nekk seen ginnaaw ñoom ñoo dem ba sonn looloo tax man ma génn xale yi nga xam ne ñoo nekk ci association merci